Euh, diggante Pastef ak euh, taxawu Sénégal yéen Benno Bokk Yaakaar yéen ci gën a profité da ngeen di applaudir oui oui oui dañuy applaudir parce que aussi. ah oui <laughs> oui oui oui c'est de bonne guerre. et c'était prévisible on savait que ni euh, une coalition comme Benno Bokk Yaakaar du courir les rues n'importe comment parce que aussi ñun on a un leadership fort affirmé par le président de la République son excellence Macky Sall. oui de donner des décrets. aussi <laughs> loolu loolu la contre par contre. cette coalition bi nga xam ne ñoomi tamit am nañ ci ay postes ay normal tank et tout ça ce qui est arrivé. Mm-hmm. on suivait de près de de loin mais on suivait attentivement li fa am donc euh, li am assemblée dañu koy ñaawlu parce que aussi je pense que le compagnonnage de taxawu ak euh, yeewi askan bi Pastef surtout dafa doonoon loo xam ne dommage mënoon na nekk lu continuer mais malheureusement. posture républicaine bi nga xamante ni euh, Khalifa Sall le président Khalifa Sall am na ko je pense bien que de l'autre camp euh, jàngewuñu ko noonu te boo ko dégloo tout ce qui s'est passé ñoom ils ont été très républicains et ils ont été très francs ci seeni demande ci aussi seeni taxawaay te ni ma gisee li ñu y quelque part où dañ leneen a nëbb am na loo xam ne nëbb nañ leen ko. Mm-hmm. ci établissement wu bureau bi tout ça. donc entreloupe yooyu je pense que mënul nekk ci biir ay coalition mënul dundal coalition et et puis ma jàpp ni euh, l'opposition tey euh, mënoon nañu def comme Benno Bokk Yaakaar à travers une coalition forte et malheureusement malheureusement euh, ñu raté ko. mais on peut pas ne pas voir la main de Benno dans ce qui s'est passé d'abord avec l'intercoalition Yewwi Wallu. Euh, une fois à l'Assemblée nationale ci la commencé am ay problèmes euh, motion de censure bi ñëw pour contre le gouvernement ñi voté pour ñi voté contre à chaque fois yéen yéen a am un gain politique maanaam. moo tax gars yi di soupçonné waa Pastef que ne cette volonté de les isoler venant de vous ci loolu ngeen nekk ba tey démarche la posture républicaine de certains am na une coalition boo xam ne c'était une coalition de circonstances élection législative la woon élection locale la woon surtout législative bi ñu fa jógee wàllu a compris ce que li nga xamante ne aussi l'expérience politique ak la maturité moo la koy jox mm-hmm. moom laa d'accord ci li nga xam ne léegi-léegi euh, notre camarade de wàllu Babacar wax na ko léegi-léegi seen taxawaay politique bi ñu am ak expérience politique bi ñu am kenn mënu leen nax ci yenn yi en un moment le wàllu a pris ses responsabilités ci biir euh, bi ñu doon voté la deuxième motion de censure sur gouvernement bi mhm. wàllu taxaw dans une posture républicaine dans une posture qui honore la république parce que aussi dañ doon jëm jusqu'à quand loolu bu ko defee bu fekkente ni l'autre camp amul lecture boobu day créer benn rupture te vous avez vu depuis lors gis nañu le parti le PDS mi ngi ne tey soit sa coalition le wàllu te ñu ngi nekk di dérouler li nga xam ne moom la leen askan bi di xaar. parce que dans tous les cas ay ay ay ay ay kii lañu ay élus lañu te am na loo xam ne c'est au peuple ci doivent le rendre. Mhm. la posture de Khalifa Sall évidemment aussi wax nañ ko léegi léegi wax na ko léegi léegi Babacar wax na ko léegi léegi ñu koy rafetlu bi mu wuyu jë ci dialogue bi ça sete le dialogue du peuple. Mhm. loolu bokkul benn yoon ak li nga xam ne. ñoom de l'autre camp noonu lañ ko gisee. mais sa dialogue du peuple aussi lan la ci peuple bi am tey jii nii loo xam ne pour moom la. dialogue bi ngay wax li ci am comme retombée. ça a profité à des hommes politiques ah. beaucoup d'acquis beaucoup d'acquis beaucoup d'acquis tey jii ba ci parrainage bi. ba ci c'est les hommes politiques xam ne dañ ko def. mais les hommes politiques sont là pour le peuple et sont avec le peuple aussi loolu tamit dañ ko. non man je m'attendais à des mesures yoo xam ne xëy na directement ci vécu sénégalais bi ci euh, consommation de tous les jours ci yu mel noonu en fait mais pas ay euh, hommes politiques yoo xam ne dañu mën a bokk wala parrainage ak yu ni mel. loolu moo tax ñoom il peut pas ne pas s'empêcher de penser que seen volonté de le dépasser de les isoler. waaw loolu loolu man loolu le dialogue ci point yi nga xam ne dañ ci doon waxtaan c'était à l'ordre du jour te moom lañu ñu waxtaanee ci loolu la ñu d'accord mm-hmm. te ñi ñëw wuyu dañoo jël posture républicaine te et puis bu ñu nee peuple bi boo gisee société civile ñëw na ci boo gisee yenn parti politique ñëw nañ ci loolu donc englobé na peuple li ñu fa waroon wax waxtaane nañ ko fa par rapport nag li nga xam ne mooy le coût de la vie loolu c'est de la responsabilité exclusive de ñi nga xam ne ñoo yore la gouvernance actuelle du pays merci beaucoup euh,